ami cher fidèles internautes ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen dalal jàmm fii ci biir Dakar Media TV comme ni ñu koy defee tous les jours di leen euh, tënk li nga xamante ni rek moom moo gën a fës ci wàllum euh, actualité ñu dooree ak euh, démb. ñi nga xamante ni daal di joxe li nga xam ne moom mooy euh, résultat euh, provisoire ci élection présidentielle yi ñu jógee le 24 euh, mars ñu ngi xamal ni daal ki nga xam ni moom mooy Jomaay Fay fu mu toll ni tembe victoire am moom leer na nañ kenn dootu ko naatable parce que nag mu ngi am plus de 2 cent 434 751 voix moom la daal di am daal di am lu tollook 54 virgule 28 euh, pour cent Amadou Ba moom moo ci euh, topp daal di am 1 million 605 euh, voix daal di am daal am euh, pourcentage tolloog 35 euh, euh, virgule 79 pour cent la daal di am ñu ngi xamal ni daal taux de participation bi mu ngi tollu ci 61 virgule 30 pour cent maanaam daal ki ci topp moom mooy waa PUR di moom du Dia moom itam daal dina am cent cent vingt cinq mille 125 690 voix daal di am 2 virgule 8 pour cent Khalifa Sall moo ci topp daal di am 69 000 cent 760 voix daal di am 1,56 pour cent ñoom daal ñoo toppalante mais le reste daal ñoo xëccoo li nga xamante ni rek moom mooy euh, ndaare bi fu mu toll nii euh, tembe moom Bassirou Diomaye fay écart bi nga xamante ni euh, am na ko ak ki topp ci moom bari na lool toll na ci un million de voix kon yaakaar naa ni mbir mi leer na moom Bassirou Diomaye Faye moom mooy président de la République du Sénégal bu ñu sukkandikoo sukkandikoo ci résultat provisoire yi nga xamante ni waa cour suprême daal dina koy euh, génnee waaye tam waa cour euh, euh, suprême ginnaaw bi ñu joxee yooyu les résultats daal ñuy def benn communiqué daal di xamle rek ni maanaam yenn candidat yi nekk ci biir yi nekkoon ci jongante bi am nañ droit def li nga xamante ni rek moom mooy recours de contestation waaye nag dépôt bi mu ngi yem plus tard jeudi 28 mars à minuit buñ ko deful rek dañuy maanaam activé li nga xamante ni rek moom mooy euh, euh, victoire bi ma communiqué bi daal loolu lañ ci daal euh, tënk ñi nga xamante ni rek ñoom ñoo yor commission de recensement de votes lool la ñu daal di xamle ñu ñuy xamal tam ba tey ci wàllum caution bi ki nga xamante ni moom mooy Amadou Ba ak Bassirou Diomaye Faye ñoom ñooy daal di jotaat seen ay costion mais le reste dañuy perte li nga xamante ni rek moom mooy caution bi nga xamante ni rek daal woon nañ koy déposer pour doon candidat candidat à l' élection présidentielle ñu ñëw ci président Macky Sall ci passation de pouvoir bi nga xamante ni Diomaye Faye war na ko am ak ay njoñam euh, démb nag euh, ci conseil euh, des ministres bi nga xamante ni moom moo ko daal di présider mun nañu jàpp ni sax moom mooy dernier conseil des ministre am moom président Macky Sall daal di nay waxtaan ak ñi nga xamante ni rek ñoom la doon liggéeyal ñu yombal Bassirou Diomaye Faye li nga xamante ni rek moom mooy passation de pouvoir bi yi maanaam daal nañu fexe euh, ba tënk wala dajale li nga xamante ni rek moom mooy euh, dossier yi ñu war a def passation de pouvoir bu ko defee rek moom bu ñëwee mu daal di yomb loolu ci euh, euh, moom moom président Macky Sall nag ci conseil des ministres yi ba tey bu ñu sukkandikoo ci information yi daal nay remercier aussi sénégalais yi nga xamante ni rek ñoom ñoo ko jox confiance ba mu jiitee Sénégal 12 euh, ans yoo xamante ni rek yaa jàpp na ni deful benn faute waaye itam remercier na ñi nga xamante ni ñoom ñoo ko jàppale woon ci liggéey bi muy gouvernement secrétariat général ñu nekkoon ci présidence ñi nga xam ni tam ñoom ñooy Euh, militaire personne civile remercier na euh, ñëpp euh, ci li nga xamante ni rek noonu lañu àndee liggéey pendant douze ans. ñu ngi ñuy xamal aussi ci ay information que Bassirou Diomaye démb moo nekkoon dajeem bu njëkk ak staffam maanaam ñi nga xamante ni ñoom la nar liggéeyal démb daal. waxtaan nañu ci waxtaan bu yaatoo yaatu xool naka la ñuy euh, fexe ba euh, wéyal li nga xamante ni rek moom mooy liggéey bi waaye bu ñu sukkandikoo ba tey euh, ci journal bi ñu ngi wax naan Bassirou Diomaye fay face avec la jeunesse parce que nag ñoom ñoo fi toogoon loo gëmloo sénégalais wala gëmloo jeunesse ki te ne lépp dina changer Sénégal lépp am na fi kon nag ay priorité mooy fexe wàññi li nga xamante ni moom mooy jafe-jafe askan bi lu ci mel ni dund bu cher bi waaye ni ci wàllum euh, dëkkuwaay bi nga xamante ni jafe na lool jamono ji fii ci euh, Sénégal waaye fexe tamit ba li nga xamante ni wax na ko muy jub jubal ak euh, jubbanti li nga xamante ni rek moom mooy suñu institution yi na fexe rek ba nekk ci ñu ñëw ci Abdou Mbow Abdou mbaw nag bu benn Bokk Yaakaar moom président parlement groupe parlementaire bu Benno Bokk Yaakaar daal dinay euh, indi ay euh, leeral wala ñëw ci li nga xamante ni rek moom mooy seen euh, défaite bi ñu am dimanche bi passé face à Bassirou Diomaye fay nee na nag mi ngi félicité bu baax a baax Bassirou Diomaye fay ci victoire bi nga xamante ni am na ko ndax nee na pour la première fois ci histoire u Sénégal opposant bu jógee ci opposition ñëw gagné élection yi dès le première tour loolu nag benn jàngat rek la ci am moom mooy sénégalais yi ci boppam ñoom ñoo amoon pour euh, tabb li nga xam ne moom mooy seen euh, nouvelle président waaye euh, sénégalais ci boppam ñoom ñoo doyaloon ci régime actuel bi nga xamante ni moom moo fi nekkoon loolu moo tax nag gis nañ nu ñu li nga xamante ni rek noonu la ñu sanctionné régime bi waaye nag nee na seen leader bi di Amadou Ba démérité wul ndaxte rek nombre de voix yi nga xamante ni am nañ ko ci élection yi amuñu ko woon ci législative yi kon ba tey jàpp na ni appareil bu benn bokk yaakaar mu ngi existé euh, ba tey ba tax na rek ñoom dañuy defaruwaat daal di euh, toogee toogaayu opposition euh, fexe nu ñuy maanaam defaruwaatee seen biir quant à li nga xamante ni moom moo nekk actuellement di circuler naan président Macky Sall moom moo leen tayle moom moo nekk directeur campagne bu Jomaay Faye moom moo sacrifié Amadou Ba indi na ci ay leeral nee na nag nit boo ñàkkee da ngay ñàkk ci dignité waaye bul ñàkk ba noppi li ci li ci euh, am dara nekku ci euh, dëgg wala ñenn ñi nga xamante ne ñoom ñooy génn di jël yenn propos yi di ko tenir euh, ci président Macky Sall defuñu ko lu dul lenn rek bëgg ut porox ndoll bu nu demee mais nañu delloo si waat xel yi ñëwaat ànd ak ñoom liggéey li nga xamante ne rek moom mooy Benno Bokk Yaakaar moom Abdou Mbow daal loolu la yëkkati comme kàddu waaye na félicité na président Macky Sall ci li nga xamante ne noonu la élection yi demee ñëpp jàppoon nañu élection yi dina bëri tension mais ginnaaw yàlla ak président Macky Sall fexe nañ rek ba élection yi daal di amee ci anam du euh, gën a rafet ba nit ñi lënd bi sax dañoo xëy ñoom ñëpp dem liggéey te amuñu ci euh, benn jafe-jafe waaye daal fi mu tëjee daal mu ngi woo ñi nga xamante ni ñoom ñoo ngànk euh, benn Bokk Yaakaar militant sympathisant ñu gën a am dëgër laay gën a nangu li nga xamante ni moom mooy dogalu yàlla reste ci parti bi daal di fexe nu ñu liggéeyee pour prochainement ñu ñëw ci plainte bi nga xamante ni rek moom Adama Fall bu APR Euh, nee na daf ko euh, daal di euh, jot nit ki démb moom Adama Fall nag nee na plainte boobu waa France waa France dégage ñoom ñoo ko ko daal di yónnee dem na sax bay bind ci page am nee na nekk na loo xamante ni rek lu teel la te jëlaguñ sax fonction. fonction mais daal tey gis nañ ko tamit mu daal di yëkkatiwaat ay euh, kàddu moom aadama Fall daal di euh, remercier nee na sénégalais ci soutien bi nga xamante ni rek am nañ ko à son égard lieutenant Dimé bu brigade euh, cybercriminalité mi ko convoqué woon tey à 10 heures te mu woowoon taskatu xibaar yi daf neen dafa woon def déclaration mi ngi informé waat askan bi ne convocation boobu daal di nañ koy renvoyé ba le avril bi à 11 heures moom. aadama Fall loola daal di mujjee bind nee na nag restons toujours euh, mobilisés pour la triomphe de la démocratie moom aadama Fall loola daal di euh, xamle. waaye Dame Mbodj nag daal dina ko yàq lu mel ni euh, Keteme moom Dame Mbodj nag détruit Adama Fall noonu la ko daal di bindee nee na nag moom aadama Fall du tardé ci ay mbiram parce que nag il a un niveau d'intellectuel très très bas. te ekk Econet moom aadama Fall il ne représente rien ci li nga xam ne moom mooy Benno bokku Yaakaar moo doon forcé boppam moo doon toog ci plateau yi di wax luñ ko laajul juste rek pour attirer attention wu président Macky Sall pour mu jox ko poste te loolu mu doon sàqu yëpp amu ci dara te seen nguur baa ngi nii euh, jeex na kon bu ne acharnement loolu du dëgg amuñu lu ñuy acharné wu ci la personne euh, de Adama Fall waaye nag moom Dame Mbodj lu mu ci teg moom mooy daal képp koo xamante ni takkoo wala laale euh, ci xaalisu askan bi beeboo na nga toog ndax ñoom amuñu jot di topp euh, ku nekk ndaxte daf sénégalais dafa am fu ñu leen di xaar te foofu la ñu war a mën a nekk waaye nag képp koo xam ne rek laale nga ci alalu askan bi daal nanga xam ni euh, maanaam justice dina ci def li nga xamante ni rek moom mooy liggéeyam quant à Adama nag moom nee na du tardé ci ay euh, waxam ndaxte rek tekkiwul dara noonu la ko dàmbooj daal di xamle ñu ñëw aussi ci drame bi nga xamante ni moom moo am euh, Pikine ni ki euh, euh, démb la ñu gis image yi di surculer benn ndaw bi wuyoo ci turu Mohamed Diop moom nag la ñu daal di faat gis ngeen démb famem ba ñu jàkkaaroo taskatu xibaar yi li nga xamante ni loolu la ñu njëkkati comme ay kàddu nee nañ nag police ci boppam police bu Pikine ñoom ñoo jàpp seen doom daal di koy dóor ba mu ñàkk bakkanam ñu dem denc ju ko ba ñëw ci jouru dëj bi ñu ñëw fa aussi itam di sàndi ay grenade grenade lacrymogène gis ngeen ni nga xamante ni aussi noonu la mbir yi euh, demee ñu am lool lu leen métti te ñu ngi ciy woo tamit euh, le nouvel président élu euh, mu def justice ci li nga xamante ni rek moom mooy mbir moomu waaye nag autopsie bi génn na moom Mouhamed Diop nu ngi xamal ni daal dafa génn àdduna suite aux complication méta métaboliques et hypodynamique d'un polytraumatisme avec fracture déplacée des arcs postérieurs de la quatrième et de la neuvième euh, euh, côte noonu daal lañ ko daal di xamle boobulee autopsie mu mel ni rek ay waa këram li ñu doon wax mun nañ jàpp ni euh, dëgg la bu ñu sukkandikoo ci autopsie bi nga xamante ni rek génnee nañ ko niki démb waaye nag ñu ngi xamante ni aussi démb ay altercation doxoon na diggante jeunes yi ak ñi nga xamante ni rek Euh, ñoom ñooy euh, police euh, bu Pikine xeex bu métti métti ba dañoo mujjee sax nag daal di taal benn bus dakaar dem dikk ba mu jeex tàkk ñi nga xam ne rek ñoom ñooy waa Dakar dem dikk itam démb ñaawlu nañ mbir moom ba tax na génnee nañ benn communiquer démb ci mercredi bi nee na seen benn bus xale yi dañ ko attaqué kaayaase ko lakk ko ba mu jeex tàkk ci altercation bi doxoon diggante jeunes yi nga xamante ne ñoom ñoo bokk ak Mouhamed Diop ak police bu euh, Pikine ñu ngi déploré wu nag ci acte boobu nga xamante ni euh, def nañ ko ba tax na rek ñu ngi waat population bi à plus de euh, retenue waaye nag pour maanaam de mesures de sécurité ci communiqué bi ba tey waa Dakar dem dikk nag nee nañu maanaam bus yi nga xam ne moom moo nar a moo war a jaar Pikine dañ koy daal di suspendre jusqu'à nouvel ordre pour mën a maanaam limiter dégâts yi nga xamante rek dund nañ ko ni kuy euh, démb ñu ñëw aussi ci information bi nga xamante ni rek waa Dakar Buzz ñoom ñoo ko daal di euh, xamle nee na nag euh, ñu ngi xamle ne waa GIGN ci boppam jamono ji ñoom ñooy assurer sécurité bu Ousmane Sonko ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekkoon seen ay garde rapproché usmaan Sonko ak Bassirou Diomaye fay jamono ji daal bu sukkandikoo ñoom ni ñu ko bindee comme information daal ñoom nekkatuñ ko waa GIGN ñoom ñooy Euh, euh, maanaam sàmm euh, sécurité Jomaay fay ak Ousmane Sonko bu dee Jomaay fay moom nit ñi mun nañ ko nangu parce que nag moom mooy président de la république kon waaye GIGN ci boppam ñoom ñoo war a saytu waaye wàllu sécurité mais quant à Sonko loolu nag question la boo xamante ni ñu bëree bëri ñu ngi koy samp ci information boobule ñu ngi xamal ni daal moom Ousmane Sonko jamono ji boo xoolee maanaam ci ñi nga xamante ni ñoom ñooy saytu wàllu sécurité am Euh, euh, gis euh, waa GIGN noonu lañ ko daal di bindee te jëlaguñ sax li nga xam ni rek moom mooy fonction jamono ji euh, tembe bu nu sukkandikoo daal ci Dakar Buzz noonu lañ ko daal di euh, bindee. ñu ñëw aussi ci exil bu euh, Adji Sarr moom Adji Sarr nag ginnaaw information bi nga xamante ni secoué na toile bi ni Adji Sarr génn na Sénégal dem fi nga xam ni moom mooy Genève te am na sax photo boo xamante ni ñu ngi koy partagé nduru na lool ki nga xam ne mooy Adji Sarr waaye muy information boo xamante ne rek vérifié nañ ko te effectivement Adji Sarr nekkatul Sénégal Françoise Hélène Gaye mi nga xamante ni rek kenn dootu ko présenté. moom mi nga xamante ni euh, bokkoon na ci ñuy jàppale Adji Sarr ci li nga xamante ni rek euh, mi ngi ko doon sàkku maanaam justice diggante moom ak Ousmane Sonko moom nag nee na ñu ngi koy interpellé lu bare bari ci euh, propos wu Adji Sarr ndax dafa génn Sénégal wala génnul Sénégal waaye nag nee na amul benn réponse boo xamante ni rek mun na koo joxe actuellement ndax fu mu toll nii tembe gisul Adji Sarr xamul Adji Sarr euh, fan la nekk moom aji moom François Hélène daal loolu la daal di xamle waaye nag nee na dina ñëw def live daal di euh, édifier sénégalais yi ci laaj bi nga xamante ni rek ñu ngi ko woo à chaque fois di ko laaj ci Adji Sarr. ami cher fidèles internautes li leen tey ci xibaar yi nga xamante ni rek moom moo ruusandi leen jox dig daje incha allah rabbi demee ci yeneen actualité d'ici la porté vous bien restez à suivre nos programmes sur Dakar Media TV merci.